yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf waa kër Ousmane Sonko yi ne woon duñu dégg waxi plan B far nañu romb plan B ñoo ngi léegi ci plan BDF Bassirou Diomaye Faye ubbi l'Observateur yéenekaay bi bind na ne moo doordu ba woon ci parti Pastef ba woon mu di Sonko ou rien Ousmane Sonko mooy plan A mooy plan B ba Z bu parti Pastef taxawaay boobee seeni borom dellu nañ ca gannaaw ba tànn Bassirou Diomaye Faye mi ne woon secrétaire général bu parti mu nañu mooy popularité bi jiital ko ngir tey ji bu ñu demoon ba ca cappaandaw la ñu gis ne Ousmane Sonko du mën bokk ci élection yi bu boobaa Bassirou Diomaye Faye mën ñëw taxaw bu ko defee waa kër Ousmane Sonko yi du ñu waat élection présidentielle point actu bind ne Sonko dellu na gannaaw investir na Diomaye Faye turbine fay la ko bu bindee ko noonee moom it mu di Sonko teggi tànkam Diomaye Faye teg bosam fas yéene dem au front lise ko dolli ñu ci ne Diomaye entreprise bu Ousmane Sonko bi ñu doon séntu Sud Quotidien dañu xibaar ne tey ji ci ji ci la ñu tàmbali seen opération parrainage ñi nga xam ne amoon nañu yéene doon candidat bu Ousmane Sonko demul woon ñu ci mel ne Birame Souleye Diop ak consort Sud nee nañu dellu nañu ca gannaaw ànd jiital Bassirou Diomaye Faye mi Ousmane Sonko tànn sursoit ne ko li ko ñenn ci awakaam xelaloon moom Ousmane Sonko ci mbiri candidature ci présidentielle 2024 yi ak li Ousmane Sonko jëfe instruction ci ñu koy tuumal yéenekaay bi nee nañu bokk na ci li def lu mën xajamal jàmmi réew mi bokk na ci xutti wormay magistrat ak tuumay diffamation juróom-ñaari tuuma yi toppee njaatigéem di Sonko ba tëyee ko ca kaso ba am na yoo xam ne ñoom ñaar di Bass ak Sonko ñoo ko bokkale Vox Populi ak journal L'Info xëy bokk bind ne Sonko pare na ne Bassirou Diomaye Faye ñu jaare fa xooli candidat yu dëgg dëkk bi di wut ay parrainage ngir élection présidentielle original coordonnateur bi doon responsable de la vie politique bu coalition gëm sa bopp déployé nañu ci réew mi 2700 ak ay wato yu bari ñaar fukki L200 ngir parrainage yi ci jamono jooju l'observateur mi ngi ñuy wax ne borom mouvement ànd defar sikap di docteur Tamsir Soxna jébbal na keroog samedi fukki junniy parrain kii di Abdou Karim te lu ko jiitu woon keroog ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru octobre moom l'homme d'affaires bi bi ñu dara ci wàllu parrainage ci diwaanu Louga li tax lii quotidien nee nañu mooy Mamadou Mamour Diallo borom mouvement dolli Macky directeur général bu ONAS teg na ci taabal ji ñaar fukki junni parrain ak benn 21 000 yi waa Benno Bokk Yaakaar bu Louga soxla bu doon ñett la Mamadou Mamour Diallo joxe na benn ba boole ceeki ànd ak ñi mu àndal ci mouvement dolli Macky taxaw temm ngir ndamal Amadou Ba Aminata Touré nañu ci la moom daf ko leer ne kii di Amadou Ba du a na ci réew élection maire bu mbaaw di Abdoulaye Pouy ñu gën koo xam ci Obama moo ko taxawal keroog samedi ko doon siiwal ba siiwalaale ne ñoom jëluñu avance kenn ànduñu ak benn candidat te it waxaguñu ne candidat sàngam la jàppale ñu ne daal bu ñu gisee candidat bu matal ñetti conditions yi muy ñu xam candidat bi ci boppam mooy kan programme mooy lan ak candidat bi ban cër leen jox ak fan la leen teg ñoom waa mouvement gëm sa bopp defar sa réew borom réew mi Macky Sall dafa siggil Sine mu ngi wax ci biir l'Observateur ne loolee ay caaxaan donte bi président de la République demee ca Kaolack fekk ko woon ci réew mi terewul mi ngi rafetlu bu baax a baax teeru bu rëy gi Saalum teeru président Macky ak ni ñu ko tatagaleeg ni ñu ko ganalee gayndey football yi ñoo aay ci gan yër leen xët mu njëkk record yéene kay xëy na dikkaat ak ñun ci max bi doxoon ci diggante Sénégal ak Soudan du Sud ci stade Abdoulaye Wade ba ca Diamniadio mu ci qualification coupe du monde 2026 yéenekaay bi nañu Sénégal dafa dalal Soudan du Sud duma ko ñeenti bal ci dara lise ko jàppe ko ab promenade de santé sunu lamb moom li mu mooy combat bi woon démb ci arène nationale ci diggante Lac de ak Siteu yéenekaay bi nañu Lac de Guiers 2 ndam li ginnaaw ba ñu bëree ba bi jeex avertissement yu Siteu am ci biir combat bi yéenekaay bi nee nañu moo xañ Siteu combat bi abonné ci suñu chaîne youtube